ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع بسم الله الرحمن الرحيم روى النسائي في سننه الإمام النسائي سلونة سننم ننا أخبرنا خبار نيو amru bnu ali qaala kooku nee na xaddatanaa nettali nañu yaxya an uthmaana jëlee ci uthmaan uthmaan ashaxaam an muslim ibni abi bakrata qaala muslim ibni abi bakrata nee na kaana abi yaquulu fi duburi salaati sama baay daana wax gannaaw julli ñaan gile allahumma inni acuudu bika min alkufri walfaqri wa cadaabi alqabri allahumma yow yàlla mi ci tur yu rafet yi ak melo yu kawe yi inni naka mansa sa bi acuudu dana ma laqu dana ma muslu dana ma protégé wu ci yow minal kufri ca laale moom kéeféer la maa ngi ñaan nga musal ma ci weddi wal faqri ak ñàkk wa adaabil qabri ak mbugalum bàmmel ne fa kuntu ma nekk aqulu da aquluhunna daan di leen wax fa kuntuma nekkoon aquluhunna di leen wax fa diggu ko ba qaala abi sama baay wax ma maanaa fa qaala abi sama baay digg ma koy wax mu ni ma ay bu yow sama si amman axadta haada foo jëlee ñaan gi qultu anka ci yow laa ko déggee di ma ne ko ci yow laa ko déggee qaala inna rasulallahi sallallahu alayhi wa mu ne ma yonantu bi alayhi salaatu wassalaam kaana yaquluhunna moo leen daan wax kaana nekkoon na yaquluhunna di leen wax fi duburi salaati gannaaw julli maanaam baayam ci yonantu bi la ko déggee mu ko daa mu daa ñaan ñaan gi gannaaw julli doom ji di dégg baay ji di ko ñaan gannaaw julli mu mokkal ko moo tax looy wax ci sa kanam njaboot xam ko ndax yaay seen rôle model ñuy wax rôle model yaay seen royukaay waaw doom baay rëy na ci moom ba mu ëpp yaay rëy na ci moom ba mu ëpp waaw looy wax rek nay lu baax looy defit ne lu baax ah, nee nañu al qudwa qabla daawa balaa ngaa woote jëme ci looy mën a woote jëme ca melal noonee ba noppi waaw ah, nee ñu Amar ibn Abdul Aziz daan wax ne woo leen nit ñi jëmee ci diina fekk du ngeen wax sax ñu ne ko loolu nu muy demee mu ne ci seen jikko bi axlaaqikum mbokk yi ñaan lu am solo la rawatina gannaaw julli zikar lu am solo la rawatina gannaaw julli ndax yàlla ba mu tuddee julli ba pare def ca teg wala zikrullahi akbaru wate yonentu sallallahu alayhi wa mu bari lu daan zikar gannaaw julli bari lu daan ñaan gannaaw julli mag ñi danañ wax ne bokk na ci màndargaay julli gu nangu boroom toog fa mu jullee ba def adkaaru salaati ba noppi yonentu wax na ne boo jullee ba noppi jàng ayatul kursi gannaaw julli gu noppi nga gu nekk nga jàng ayatul kursi nee na dara doxut sa digganteeg aljanna lu dul dee subhaanallahi walhamdulillah allahu akbar bu nekk fanweer ak ñett nga tëje ko laa ilaha illallah benn yoon laa ilaha illallah waxdahu la sharika lahu lahu almulku wa alhamdu wa huwa ala kulli cheyin qadir bàkkaar boo mënoon a def sama borom baal na la ko waxoon na Muaaz dama laa sopp saa yoo julleete ba noppi bul ñàkk def ñaan gi allahumma a ala dikrika ko def ñetti yoon borom maa ngi ñaan nga dimbale ma ci di la tudd ak di la sant ak rafetug jaamu la na wax allahuma anta salaamu wa minka salaamu tabaarakta yaa dal jalaali wal ikraami ñaan yooyu yëpp boo loo ci mën rek nga def ko ne ñu daal dana wane dana màndargaal ne sa julli gi yàlla nangu na ko waaye léeg-léeg asalaamaaleykum rek nga tëb waaw ah xanaa boog muy soxla su su ko jar te néew na soxla su ko jar nag waaye ku nekk ci yoon it mu nekk ci yitte bu noppee na def azkar yi ca yoon wa waaw yenn yàlla daal defal ñu tawfiq ba ñu di ko tudd fuñ toll di ko sant fuñ toll te mu may ñu ñu mën koo jaamu nam gën a mëtee nañu musal ci kéeféer musal ñu ci ñàkk musal ñu ci mbugalum xabru te boole ñoog yonent bi ci àdduna boole ñoog yonent bi àlaaxira bi jaahihi sallallahu alayhi wa sallam wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa wa sahbihi wa sallama